assemblée nationale bés yi dafay toppante waaye mu mel ni yëpp niroo ni ki alxames ji élimaanu jëwriñ yi jàkkarloo nag député yi ngir tontu ay laaj yu ñeel actualité lu ni mel nag ñàkkul woon coow. ba ñu dooree yile liggéey yenn militangu yu farek nguur gi dañoo door di way Macky président loolee nag neexul woon député yi ne ci kër kujje gi ñoom ñi nga xam ne sax dañuy dal di gedd bi la plénière waaye ginnaaw gi dinañ dellu siwaat bu weesoo defante gi parlementaires yi ñoom itam yëkkati nañ ay laaj yu jëm ci secteur yu bari ci laaj bu jëm ci yan matuwaay la nguur gi teg ngir ñu mëna jëmal jëmmal mesure bi mu ñeel wàññu prix denrée nécessité yooyee jëwriñ bi di xamle ne ay commerçant convoqué nañu leen te ay amande it am nañu ñu ko jébbal. ont été convoqués. 148 millions d'amendes ont été décernées pour des infractions de trafic de biens illicites. 1137 tonnes de produits ont été saisies. lu ñeel tamit jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci séddale ndox ca dëkku kaw yi tamit bokkoon na ci bile waxtaan. suite à des pannes notées dans 105 forages qui aujourd'hui sont totalement à l'arrêt. Ces pannes qui pour la plupart du temps sont dues à la défectuosité des pompes ou des groupes électrogènes, à de quelques forages dont la nappe a tari. Elimaanu jëwriñ yi ak gouvernement am dal di nañuy euh, tontu fukki laaj ak ñeent yu jëm ci actualité bi ci assemblée nationale ñaar fukki fan ak juróom ci weer bii ñu ne laaj yi nag bokkoon na ca. wàllu koom pétrole ak gaz wàllu wér-gu-yaram ak liberté publique yi élimaanu jëwriñ yi nag dal dinay dikkaat ci solos dialogue bu tënku ci démocratie waaye tamit ngir ñu mën a gën a ñoŋal institution wu réew mi